Thank you. chers auditeurs yu Enquête 221 dalati leen jàmm dalati leen jàmm ci actualité comme ni ñu koy defee saa su nekk tey jii di vendredi 5 juin 2020 naqar ak tiis le monde de la presse sénégalaise yeewoo ndax un grand présentateur d'émission dans le monde de la presse sénégalaise moo dëddu àdduna kooku mooy Ambroise Gomis bi ñëpp miin ci wàllu présentation d'émission ci RTS moom nag bu ñëpp miinoon la nekkoon koo xamante ni nii référence la ci képp koo xamante ni nii da ngay présenter émission moo xam télé wala rajo fii ci Sénégal Ambroise Gomis ñàkk bakkanam tey jii ci ajjuma ji ci Dakar ci xibaar yu ñu mujjee jot sax ñoo ñuy xamal ne danañ ko jébbal boromam niki samedi bi ca Saint-Louis Ambroise Gomis nekk monument nekk monument bu mag wàllu présentation d'émission télévisée ndaxte ci jaar-jaaram ku marqué jamonoom la te sax Sénégal yi ñëpp xam histoire am ak Miss Sénégal waaw ndaxte jiite na ko lu tolloog vingt six ans nekk ci bopp comité d'organisation bi ci gannaaw gi la ko bàyyee ak soxna si ñuy wax Aminata Badiane Ambroise Gomis tëddoon tëdd bu yàgg gannaaw ba mu amee benn accident vasculaire cérébral ñu gën ko min ci AVC tiis bii nag gàllu ci monde de la presse sénégalaise rawatina ci animateur et présentateur d'émission yi rédaction bu enquête 221 ñoo ngi ci mastawu ak a jaal le monde de la presse sénégalaise